ñuy dalal tey euh, sëñ bi Ousmane Diouf di administrateur And Gueusseum ñu lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay di la mhm. tey euh, ñu waxtaanee li nga xam ne mooy actualité d'abord ñu gis ne tabb nañu euh, kii di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci bopp ministère de la santé ban lecture justement nga ciy def. ak lan ngeen ciy xaar ci moom. Euh, balaa lecture bi. Hmm. balaa lecture bi. Hmm. dañuy masaw xale yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan fële ca Tiwaawoon. Hmm. di leen di ñaal seen waajur te di ñaan yàlla mu loolu bañ fee amati. te aussi mu may seen waajur xolu muñ. mais ñu mën a supporter épreuve Euh, euh, lecture bi ñuy am euh, ci nomination ministre Amary Ngom mhm. Ndiaye mhm. mooy ko jaajëfal waxte kë la di ci këram mhm. bu ma ci këram moom mais occupé na fi ci médecin chef de district médecin chef de région directeur euh, at yu bare bari dem directeur général balaa démb euh, ñu ko ministre donc moom këram la euh, ñu koy dalal këram di ñaanal tamit mu am ci mission bu bees biñ ko biñ ko parce que loolu sas laa mm-hmm. di xaar ci moom nag mu nekk ministre mu bañ nekk ministre Euh, pàcc wala pacc be wala ministre boo xamante ne dafay nekk euh, ci leneen la nga xamante ne askan bi bëgg du li gi bëgg du li nga xam ne daal moo tax ñu tàbb ko fa. Euh, te jii ban avantage justement la docteur Marie Khemesse am ci tabb gi ñu ko tabb. avantage bi mu am mooy moom soxlawul. ñaari fan wala fukki fan pour naan damay jàng. Mhm. moom lu fi nekk xam na ko. lu fi xam na ko. politique buñ fi fukki at ak juróom ñi weesu. Mhm. fekke na ko. proposition de solution bu fi nit moom xam na ko. Mhm. donc moom li mu li ñuy xaar ci moom rek moom dawal. avantage bi mu am mooy. kër gi la bokk. fukki at ak juróom fukki at yi weesu. moom était au niveau. stratégique. Mm-hmm. lépp lu fi xew fekke na ko. daanaka mun naa ne ci la bokk. Mm-hmm. donc xam na lu li fi baax xam na lu fi baaxul. Mm-hmm. xam na fi mu xam na xam na li war xam na li warul. donc moom dafa war a ñëw rek doxal waaye amul naan ah, damay xaar lii damay pour comprendre lii comprendre la lépp fi nekk. donc lu avantage la. ndax dafa am lu ngeen seetlu ci ministère de la santé gi ndax yéen da ngeen jàpp ne dañ fee teg euh, politique te euh, euh, li taxul mu dox. moom suñu position nekkul ci profilu politique wala médecin wala déedéet nekkuñu ci loolu. parce que bu ñu xoolee parmi les meilleurs. ministre de la santé du woon médecin am na fi ay médecin ay professeur xam ne ay kii ay ministre de la ay professionnels yu ministère yi lañ woon mm-hmm. euh, defuñ fi loo lu ñu ñu defe defu ñeneen donc c'est pas une question de médecin wala leneen mm-hmm. ñun daal li ñu soxal mooy ku ñëw di liggéey pour jëmale Euh, ministère bi kanam. Mhm. Euh, liggéey euh, la nga xamante moom mooy boole ñëpp régler problème mu travail yi régler problème mu population yi régler problème nguur waaye lii nga wala fii nga bokk loolu ñun nekk sunu position. Mhm. nga wax fi sànq ci say kàddu tamit benn mbir bu mu ñëw rek doon ministre benn pàcc. lu waral ngeen di artu noonu. Euh, li waral ñuy artu mooy boo seetloo ministère de la santé fi mu nekk nii. Mhm. dafa mel ni ministre ministère u médecin yi kese. ndax lan. Ah, euh, mais poste de responsabilité yëpp ay médecin ñoo fa nekk alors que. ministère u paj ministère fekkee ne médecine la pharmacie la faculté de médecine la hôpital lañ koy appliquer mais ministère c' administration qu'on fait là mhm. administration dafa am ñu ko jàng mhm. yaa ngi gis donc képp ku mën a ku jàng administration war nga war nañ la mën a jox mbir waaye li ñuy gis boo nekkoon médecin kenn du la jox. Hmm. et boo gisee aussi ñu gën a wax loolu mooy mooy ci boppam euh, ministre euh, euh, Marie Ngom Xemes hmm. mais secrétaire général syndicat Euh, moom ci secrétaire général syndicat yu médecin la la woon. Hmm. Euh, yor na ko ñetti at. Hmm. donc ñun dañuy euh, attirer juste l'attention. Hmm. pour moom mu bañ a jàngi. parce que bu jàngee dafay indi yeneen yi nga xamante ne mënoon nañu ci bañ a yegg na nekk ministre yi parce que njabootam médecin la infirmier la sage femme la chauffeur la assistant social la ñëpp la. Mhm. donc ñu ngi ñu koy xaar mu nekk ministre ñëpp euh, boole ñëpp ci ci waxtaan bi parce que problème loo boo bokkul ci solution bi. Mhm. ça signifie que yaa ngi ci problème bi. yaa ngi ci problème bi. voilà alors que ñun dañoo bëgg a nekk ci solution bi. pour que de mhm. ñu waxtaanee benn mbir bi nga xam ne actualité la muy euh, bébé yooyu faatu ci benn lakk-lakk gi amoon ca hôpital euh, bu Tiwaawan euh, monsieur Diouf mu mel ni mbir mi daal ñu ngi koy bëgg dégg lu bëri ñu ngi koy bëgg moo ngi bëgg sax suñu noppi lakk-lakk am na ci hôpital ay bébé faatu nañu tey loolu noo ko jàngate waaw ni ma ko jàngatee mooy métit lu ko comme ñëpp. Mhm. vraiment lu métti la te foo foo ko métti nit dafa dal ci sa mbokk wala mu jege wala dal ci ku la jege. lu métti la. ñu leen di jaale seeni i mbokk seen i wajur. te nag di wax ne ni mu baree nii la moo war a ñi te du problème mu directeur moo koy saafara wala. nekk ci infirmier wala tey sage-femme moo koy saafara. kon lu koy faj. problème bi hôpitaux Sénégal yëpp boo génnee ñeenti hôpital yi ñu tabax nii yu wees. Hmm. hôpitalu Sénégal yëpp a bokk jàngoro. dañoo màgget euh, installation yëpp euh, ndox bi di senn fii courant bi di fe feeñ langu fële. Hmm. Euh, personnel bi doyul. personnel bi kontaanul. Hmm. équipement yi amuñu. équipement yi doyuñu mhm. et cetera donc les mêmes causes vont produire les mêmes effets partout si on y prend garde mhm. Mhm. Linguère a ngi fii euh, Louga barke démb boo boo seetloo ci hôpitaux yëpp tout le a les mêmes problèmes Mm-hmm. Euh, ndax loolu moo wone seen taxawaay saa su nekk bu seen ñooñ yu benn hôpital amee jafe-jafe ngeen taxawu leen ndax jàpp ngeen ne euh, mbir mi gën naa xóot foofu. da euh, taxawaay yi. Mm-hmm. ñun ci ma di wax ak yow nii ngi ci yoon. Mm-hmm. pour dem ci waawoon. assister suñuy camarades parce que. borom kër gu nekk bu sa njaboot nekkee ci jafe-jafe dangay ngay dem euh, taxawoo ko nemmeekoo ko. Mhm. waaye euh, taxaw bi ñuy taxaw pour le moment. Mhm. wute na ak taxaw bi ñu taxaw woon. Euh, ca Louga. Louga. Mhm. parce que Louga dañoo jàppoon ne. dañoo defoon dañoo làqoon doom dóor doom. waaw yemale wuñu woon moo taxaw ñu ne leen mënul demee noonu na ñu yemale parce que foofu noonu. balaa ñoo ne dara njiitu kër suñu kër muy ministre bi fi nekkoon. Hmm. daf ñoo condamné woon déjà euh, à la vindicte populaire. alors que loolu du woon cëram. Mhm. Euh, tey ñu jeexaleeg accord yi nga xam ne yéen waa And Gueusseum yéen a ko doon amal ak euh, état bu yàggul déggoon nañ leen euh, waaye accord yooyu daanaka moo fay coow li mën nañ ko waxee tey lu luñ ci mën a jàpp justement ndax commencé nañ ko matérialiser. commencé nañ ko matérialiser ci weer bi ci lu bëree bëri am na nag ay sooxe. Mm. waaye loolu mun nañu ko jàppee nekk ne suñu ndaw a ndaw la jéego yi daal luñ ci def waaye nag euh, loolu taxul soow euh, li euh, fay carrément mm-hmm. ndaxte barki démb àllarba ñu moom cité ndax mm, problème mu Matam bi mm. mu ngi toujours kenn réglé wu problème mu Touba bi tamit kenn réglé wu te loolu dafa dañoo jàpp ne rek nit ku nit moo neex Euh, ci kaw kii def maa tey ci kaw nit ñi euh, jaay leen doole mu ne nag jaay doole a jeex. Mm-hmm. donc euh, am wuro sow gi directeur ba yokkal boppam. xaalis. Mhm. ñu ne ko yokkal ñu xaalis. Mhm. mu ne du leen yokkal. ba pare ñu nekk ci histoire mu sunu représentant bi kii bi bi nekkoon foofu ci hôpital bi. Mhm. en même temps nekk responsable euh, euh, chef euh, kii du service des soins infirmiers. mu daf koy wàcce parce que d'accord ak moom ci waru ko woon def noonu. ñu ne ko nag moom moomu la hôpital ba te moom nee na moom mooy directeur ba mu ko wàccee bu ko wàccee du ci dellu siwaat hmm. alors que ci wàccee bi moom mooy ci directeur ba fa mujjee waaye ñeenti directeur yoo xamante ñu nga fa ak waa jooju noonu waa ji mosul am benn sanction mosul am benn demande moom mu ñëw di ko jaay doole ñu ne ko nag loolu dafa yomb trop yoon dafa am euh, nu mu war a doxee bu ko doxalee ñu jàmmarloog moom. beneen bi mooy Touba infirmier boo xamante ne ab infirmier ah sëñ euh, soxna si. Mhm. ñetti ñetti fan. ñetti fan jàppal bien ñetti ñetti fan. tey Abdoulaye Diouf Sarr affecté ko Fatick. suba secrétaire général ministère de la santé Alassane Deng annulé affectation boobu delloo ci Touba. Mhm. ginnaaw suba. Abdoulaye Diouf Sarr jëlaat une troisième not affecté waat ko Fatick euh, ci ay consideration yoo xam ne kenn mënu la wax bopp bi kenn mënu wax genn gi génn bi mais sëriñ si nga xam ne ñoo nekk ci gox bi muy kii ñu ne bëggumu mu dem tey bëgguñu mu dem euh, ëllëg euh, organiser conférence de presse ak weer léttuñu ko firi firiwuñu ko ci loo xam ne teguñu ko fen ñu ne loolu tamit jaaduwul loolu daal nekk naa yi na yoo nga xamante ne bu ñu ci boole fitna bu mbuur bi convention boo xam ne arrangé wul ñi ko kii ba pare tànk bi kenn du ko dagg kenn du ko tàllal kenn du ko banque loolu kenn mënu ci dara. Mhm. donc loolu mooy problème yi nga xamante ne ñu ngi raam. te dañuy yeewaat fitna ci lu yàggul dara. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Ousmane Diouf administrateur And Gueusseum. jërëjëf maa leen di gërëm di leen sant.